en tant que président de l'association des parents d'élèves, je li euh, lancer un message aux populations Nous sommes ñu impliqués dans la vie de l'école. parce que remarquez-nous, comme mon ami Mamoudou Boga Diop président du comité de gestion de l'école de El Hadj parents sont impliqués dans l'éducation trop trop trop trop trop on a remarqué aussi que ni fii am na ay bulletins wala ay kay yi fi nekk depuis des années seeni parents jël si wuñu des fois da ngay gis ay parents yoo xam ay élèves yoo xamante ne dem nañu ba CM2 dañuy am problème mu état civil problème mu bulletin ñu nekk ci di daw am na ay xale yoo xamante ne ren présenté wuñu à l'entrée en sixième faute de bulletin donc loolu ñu ci ñaan parents yi di leen ci ñaax pour que ñu ñëw gën a impliqué wu euh, ci gestion wu école bi gëna impliqué wu si tamit ci éducation xalé yi loolu dal la amone lumay lancer lancé ji euh di remercier aussi l'ensemble euh, des enseignants le directeur enseignants yi ci taxaway bi nga xamantene taxaw nañ ko ñun en tant que e, en tant que comité de gestion en tant que aussi tamit acteur communautaire on s'implique dans la vie de l'école parce que biñuy ñëw ci école bi le taux de réussite au CFE euh, et à l'entrée en sixième était de, de, 11%. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à près de 70%. Nous n'avons un véritable bond en avant. Nous sommes liggéey ligue xamante ne liggéeyu euh, liggéeyu liggéeyu ligue la donc nous ñaan rek parents yi ñu nous ñëw ñu ci atteindre le taux de 100